ne ko nekkoo ci fichier bi loolu lan moo ko mën a sabab. li ma li ma ci mën a wax mooy ñun lii suñu position nit ñi dañuy jàpp ne fichier électoral bi bi ñu contrôler bokkut ak peut-être fichier bi waroon a am nit ñooñu ñëpp noonu parce que man gisuma ko. moo tax yow ngay exiger ñu réactualiser fichier bi. déedéet man exiger ma ñu réactualiser fichier bi dama ne dama ne fichier électoral bi nga xam ne bii ci la ministre de l'intérieur sukkandiku. ne Sénégal am na million 7 millions 371 mille et quelques électeurs jàpp naa ne fichier boobu la conseil constitutionnel war a yore donc nañu wan d' abord opposition bi que moom la ñu yore pour ñu mën a d' accord ci li nga xam ne lii loolu la ñu wax parce que gis ñu gis sinon beneen explication bu tax 500000 électeurs ñu ne nekkuñ ci fichier bi. kon yow da nga jàpp ne dafa am deux fichiers. bon fichier moom day évoluer tamit. bu la jàpp ne dama ne. nga nee naa la fichier bi ñu ko bi. dama ne la. dafa obsolète loolu nga bëgg a wax. waxuma la loolu man li may wax dafa leer te damay utiliser ay termes dama ne la ki nga xamee ne kii moom mi ngi ci mi ngi yor na carte électeur am woote na 2022 su ñu ne ko nekkoo ci fichier bi mais dañ ko laaj ban fichier la nekkul c'est normal mu laajte ko xam nga kii voté waxuma ku bind lu bees ki nga xam ne kii voté na 2022 ci élection législative changé wut bureau de vote léegi bu ci nekkul. ah conseil constitutionnel moo ci war a tontu. léegi yow lan ngay laaj bu ci nekkul xaw ma lu tax waru ci nekk. duñ ko rajewul lan ngay laaj conseil constitutionnel. non man man c'était pas du maanaam xam nga dañu def benn collectif ñin jàpp ne dañu spolier seen parrainage biñ ko xaymaa ci vingt cinq candidats yoo xam ne ñu nga woon déjà keroog ca réunion ba ñu dem ci presque quatre cent cinquante mille électeurs entre temps évolué na parce que entre temps collectif bi yokk na ba nekk trente cinq ñoom loolu loolu la ñuy wax mam même bu fekkente ne peut-être personnellement li ma ci concerné bariwul waaye du tere tey day combat boo xam ne bi dama ci ànd ak ñoom. parce que xam nga oui oui parce que. lan la conseil constitutionnel war a def dans ce cas là. Ah, mais li ñu ko demandé mooy mu leen seen i parrainage wax ne nekku ci fichier électoral bi. mais Ali xam nga débat wu fichier bi fichier mise à disposition fichier bi euh, woon opposition fichier bi du débat du débat wu tey. waxuma la wan opposition fichier bi dama ne la xam nga tey jii buñ la comparé man li ma aussi da nga koy déglu nag te mu yomb expliquer te jaatu ñu ci perdre temps dama ne la quelqu'un qui est inscrit dans le fichier électoral voté au 31 juillet 2022 n'est-ce pas changé wul bureau de vote ci diggante bi sax bu changé bureau sax mën naa am da nga ne manipulation mën naa am ci diggante bi kon kooku normalement bu ñu jëlee fichier 2022 mi ngi ci bu ñu jëlee fichier bu bees bi mu ngi ci pour man fichier bu bees bi lañ war a jël parce que 7 millions 371 mille bi inventé wuñu ko kon kooku war naa nekk ci fichier bi parce que boo nekkee ci fichier ñu dolli fichier bi te génn loo ci yaa ngi ci fichier bi donc bu ñu la contrôler war nga ci nekk. mais vous n'êtes pas en train de demander qu'on vous mette à disposition le fichier. j'ai pas demandé ça j'ai dit xam nga mise à disposition du fichier texte bi ko réglementé tey mooy code électoral. te def na nañ ko mettre à la disposition des candidats fukki fan ak juróom avant élection. des candidats retenus par le conseil constitutionnel mooy candidat cest dire que bu ne déjà sept quinze jours avant ça veut dire que les candidats sont connus parce que les candidats sont connus à partir du 20 donc bu ne 15 jours avant c'est ça le code électoral je pense article 11 et ou 12 alinéa 7 ça doit rester en l'état d'accord nga ci mais bien sûr dama ne la awma problème dégg ko ma ne la texte yoo aussi xam nga léegi wax nga ne opposition tout dégg naa la nga wax na ndax damay am position républicaine wala position opposition opposition bi du ñàkk mën nañ am position divergente mais qui ne veut pas dire qu'elle n'est républicaine parce que position républicaine mooy aussi ñuy respecter texte yi code électoral bi nga xam ne bi moo fi nekk tey li mu wax mooy 15 jours avant élection bi Sénat ak euh, comment dirais-je euh, yi dañu war a mettre à leur disposition les fichiers. je ne dis pas que l'opposition n'est pas n'a n'a pas une posture dama ne xam na laay wax une posture républicaine. voilà mënuloo nekk euh, nekkoon Benno Bokk Yaakaar ngay défendre parrainage. di défendre mais ba léegi damay défendre parrainage. non non man je parle pas de vous. parce que moi mënoo c'est-à-dire nos hommes politiques là dañu bëgg a tàmmal benn affaire boo nekkee ci nguur. nga défendre yenn principe yi boo génnee boo fait dans la langue de bois. déedéet euh, waaw loolu loolu peut boo. gisee ñu koy loolu laay wax ah, une euh, posture boo xam ne da ngay rester euh, sur les principes. bu baaxee nga ne baax na. moo tax ma ne la nu man de damay rester sur ces postures moo tax ma la. tey li ñuy réclamer mooy ñoom li ñu réclamer aussi c'est très simple bëgg nañu xam. wax dëgg yàlla ban fichier lañ comparé boo ne leen bokku leen ci mais c'est normal bu doon yow aussi nga def loolu waaw mais fichier boobu mënuñu ci teg mënaguñ ci teg loxo. waaw mais conseil conseil xam nga laajuñ la ko yow conseil constitutionnel ko laaj. waaw mais fichier conseil constitutionnel moom bu ñu sukkandikoo ci loi électorale bi. leen mettre à disposition. fichier même bu ko mettre à disposition fichier conseil constitutionnel war leen mën a wax parce que nag xam nga bu ñuy wax fu mbaxana doonee benn il faut que fa mbaxane mi nekkee benn bu ñu bu ñu àttee nit ñi mën leen a d'accord gëm ci. atte boobu nag moo waral xam nga tey jii suspicion yu bari am na ci am na ci ñoo xam ni ñuy gis nga dañoo dugg ne bañ génnee seen fichier dañ ko laal xam nga loolu am nañu ko wax. man je me suis entretenu avec un candidat. Wow. de l'opposition waaw. Euh, qui ne pas dans la dans la langue de bois nee na bu ñu dugalee sa sa sa clé dañu lay defar un rapport détaillé de toutes les erreurs yi am. am na lu mu ŋàññ ay ay erreurs yu mu ŋàññ ci processus bi mais il ne doute pas de la transparence du processus. non man waxuma la encore une fois transparence processus man dama ne la. man aussi à dire dañuy tontu benn boobu ñu jël tontu bi demaati beneen xam nga man bi muy déposé sama clé man sama clé dama ko déposé crypté ko avant muy dem ñoom mënuñ ci woon accédé te sama représentant toogul kon man mënuma taxaw avec cette disposition la ma taxaw ne laal nañ sama clé parce que kenn mënu koo laal ndax sama clé dama ko crypté parce que gannaaw ñoom dañu ne soo déposé soo déposé say pièces dañ koy sceller meilleure façon bu ñu selee benn fichier mooy ñu crypter ko du rek dugal ko ci enveloppe man nu laa def c'est vrai que c'était risqué parce que mënoon naa ñëw conseil constitutionnel du ko laal mais dama utiliser benn disposition bu nekk seen décision numéro un ma ne crypter leen ko comme ça du ëllëg ah, werante du ci am duñ ko laal te fekke wuñu ko. da nga am xel eh, da nga am xel mu ñaaw ne parfois les données sont manipulées. loolu lépp waxuma ko man damaa jël samay matuwaay rek denc sama yëf. mais y a possibilité y possibilité de manipuler les les données à l'intérieur des bien sûr que techniquement c'est possible. mais loolu loolu la ñi wax noonu maintenant est-ce que am na ou pas c'est au conseil de de dire am na wala amul du man dégg nga plainte bi nga xam ne bii ndar nañ ko def contre le les les les informations du conseil conseil et mais vous pensez que loolu est-ce que du euh, yëngu-yëngu politique rek voilà pour. pour consommer un peu ban yëngu-yëngu euh, politique la non xam nga aussi politique la dire que yaa ngi yaa ngi jël position. sur un conflit non tu pas position. dama ne xam nga li ngay wax mooy. da nga ni nga defee noonu de am na si politique koo seeti dis la langue du def dans la langue de bois mu wax lii mais dama seeti ñooñu aussi ñu ne la lii la ñu am peut-être que ñoom du ñàkk dana la mën a jox firnde yu tax nga war leen mën a gëm wala nga bañ leen gëm a priori mënuma leen gisuma lu tax mën la bañ leen gëm. 2019 ba ñu génnee ci parrainage bi mu am des candidats recalés yu amoon yaakaar ci parrainage bi on leur a fourni ba tey jonn tey ni aucune information. ah ñoom ñu ngi resté sur le. il fallait demander au conseil constitutionnel. et et et deux mille deux mille. conseil vingt trois aussi n'échappera. mais ça ça pose ça pose problème waroon nañ ko mën a am nag dans une démocratie normalement bu nit ñi pose ay questions yoo xam ni ki nga xam ne kii moo ko saytu war na mën a jox tontu yoo xam ni boo liggéey kenn du ko werante c'est-à-dire ni la ni la ki la wax waxee ba convaincre la moom aussi war nañ ko wax ba convaincre ñëpp comme ça ñu jàpp ne. mais ak liggéey bi conseil am yëpp ak élection léegi nu mu dëppoowee Sénégal. 93 candidats. mais mais ñu ñu ñu ñu ñu ñu segg si ñaar fukk ak benn ñeneen ñi ñëpp war a nekk fi di déposer ay recours. mais ils n'ont pas le droit est-ce aussi démocratie la ñoom ñooy war a xool ndax war nañ ko def wala waruñ ko def mais man li ma jàpp mooy war nañ ko nombre bi justifié wul ñu bañ ko def tout simplement. yow jaar nga nekkoon nga ministre de loolu laa doon sax ci parce que da nga maa question ci sama parrainage. ma ne loolu man aw woon xel ñaar. ne jàll dinaa jàll. mais damay sant yàlla sax que jàlluma ci premier contrôle bi. parce que su ma jàlloon ci premier contrôle bi gëm naa ne liggéey bi ñuy def ci pare parrainage bi du feeñ. parce que man xam nga dama déposé cinquante huit mille neuf cent soixante quinze parrain donc maximum bi laa déposé bi nga xamee ni bii ñoom saytu nañ ko ba génneel ma li ñu ma génneel mooy def na ci loolu dix 79 yoo xam ne nee nañ nekkul ci fichier bi 79 donc ça veut dire que su fekkoontoon ne peut-être bi ñuy tiire au sort nekkoon naa peut-être premier daanaka 58 896 parrain lay validé bu boobaa su ma ko defoon it la ñuy wax mooy il était ministre de l'intérieur oui, il a le fichier moom ma laa expliqué man du ñu ma yàkkal parce que ki yàkkalaate moo xam ne du ma yàkkal ah mun nañ la yàqal de man laa wax. mun nañ la yàqal man munuñ maa ah, yàqal si lu tax. man munuñ maa yàqal parce que d'abord parce que d'abord soxlawu ma ko. parce que d'abord soxlawu ma ko man dañ maa yabut ba ma yàqal loolu mooy d'abord ñaar. ñaar yëpp am na man maa la wax lii man laa wax. parce que mën naa wuti parrain parce que damaa jàpp ne boo munti wuti parrain jarul may dem candidature. loolu mooy d' abord. donc yow bennoo laalewul ñu ak dara. ak sa candidature non man ak sama candidature non. xanaa kay liñ ci xanaa kay liñ ci man si du mën na laalewuñ dara mais pour man amul solo li am solo mooy man samay erreur sax yi ñu wax na ay doublon la analyser naa ko ba xam fu mu jógee man mille 15 759 parrains lañ ma waxal sur les 15 759 parrains am na plus de 11 mille parrains yoo xam ne yi. ne dañu nekk doublon quand j'ai bi ma defee samay investigation c'est des parrains qui ont eu à changer de bureau mais xam naa ci ñoo xam ne ñii duñ pare ne ñaari nit ndax ay kilifa lañ. lan nga ci conclure. bon lu ma ci conclure mooy.